lii ma yor sëñ Fallou. Mm-hmm. ku ay mbiram narta baax. Mm-hmm. du ko gis. du ma noobal nit mukk muy rëcc. Mm-hmm. képp koo xam ne noobal naa la. moo xam sa soxna la. moo xam sa patron. moo xam ki ngay bëgg. képp koo xam ne noobal naa la suñ Fallou giñ naa ko suñ Tuubaa ne bu ma la noobalee du rëcc mukk. su ma la noobalee suñ Fallou te gisoo si li nga bëgg. boo ma wooyee lu ne yàq ma ko. xam-xamu noob nekku ne mm-hmm. li ma sant Mbàkke moo tax mm-hmm. waaye dama ko jàng juróomi at jëmmi xam-xam rek li ma ko jàng daanaka ëpp na fukki at jëmmi xam-xam rek mm-hmm. waaye xam-xamu noob dama ci ëpp lu ma ci gëstu gis nga sëñ Fallou ki ma gën a soxla si noob mooy koo xam ne ka muy bëgg ko bëgg ko ka muy bëgg moom kooku bëgg ko kooku laa gën a soxla si nobal ko ko ba topp ko jox ko àq bi mu ko war a jox mm-hmm. jox ko gëdd gi ko war a jox mm-hmm. kooku laa gën a mën a nopp Sëñ Fàllu mm-hmm. ngir mu topp soxnaam bu dee wàllu noom nag Sëñ Fàllu moom jàpp naa ne Sénégal moom leer na naa ñi ndax am naa ci preuve waaw ndax ñi man noobal seeni soxna topp leen ak seeni boroom kër yaakaar naa preuve bi moom bëri bari na si bëri na si internet bi ku dugg ku dugg ku dugg da ko gis képp koo xam ne Sëñ Fàllu nar naa laa noobal te du jàpp yàlla boo ma gis waaye Sëñ Fallu nopp ba ma ci dalee liggéey ba tey ah ñi ma si jëfla ñi ma si jëflanteel kontaan nañ de surtout maa ñi nekk moodu moodu yi nga xam ne moodu moodu yi nga xam ne ñoo ngi bitim réew